waaw maman <laughs> maman bërëb bi yànji na de fii fan la. Hmm? kon yow xamoo fi. fii mooy Sams. Sams. bett ma woon. toog sa aawa bi si kër gi tamit mooy loolu. lan sa aawa si kër gi mooy loolu. ah damaa xam ne endroit yu baax yi si dëkk bi yëpp xamu ko. <laughs> ut ñaareel nag jot na. yaa ngi tooñ de ah, tooñu ma de bàyyi jàmbur. baax na nii maman lan moo tax nga indi ma fii. juste bëggoon ñu waxtaan rek man ak yow. sama diggante ak yow. parce que dama gis ni danga may éviter te loolu du yoon. depuis combien de temps maa ngi la topp. li ma bëgg munoo fexe ba ma taal xanaa gisoo ma. li nekk ci jigéen yëpp ñu si man. d'accord sa jabar lan la ma pële. du question de bokkul de da ngay xool tamit man samay sentiment <laughs> bu dee amul mais bëgg naa nga xam benn affaire gis nga mbëggeel dafa nekk loo xamante ni lu sacré la nekk na loo xamante ni aussi kenn du ko caaxaane maman bañuma la. jigéen bu baax nga ku yaru nga aussi te xam naa ne ku gëm sa bopp nga ndax gëm sa bopp weesuwul boobaak négé ni nga may topp de gauche à droite pour ñu nekk mais man pare guma en fait pare guma la nag certes mais pare guma carrément pour nekk ak yow parce que dafa am ci loo xamante ni ci laa nekk loolu kese la mais du dara jigéen bu baax nga mel na mel nga ni nga war a mel yépp yaa ko wax léegi mais pareegu ma dégg nga pareegu ma su ma sañoon nag nga may ma ba ci kanam a kanam a kanam essayer comprendre may ma rek ba ci kanam bul brûler état bi yow tamit dégg nga ku takk ku la takk rek nga bëgg bis buñ ci àggee dina am mais dafa teel xaw ma guma la à cent pour cent yow nangu la guma la sax relation ngay wax waxu takk te yaa ngi ni commencé goo di minimiser sama aaw dama bëgg sama aaw bëgguma ko koy minimiser soo bëggee nekk sama ñaareel nag maman il faut nga fonk ko fonk est-ce loolu kese la. si say biir wax yaa ngi wax di tudd sa jabar naan maa koy minimiser minimiser wu ma ko de. ok. xanaa da ngaa fàttali am nga droit am ba quatre jabar. dëgg la dëgg nag pare naa pour toog xaar la parce que je ni góor bu baax nga. góor bu dëggu nga am na aussi foo teg sa jabar su ma gisul woon loolu lépp kon du la topp kon bàyyi naa fi dama xooli leneen sama bëggeel ci yow nëbbu ma ko de te jaral na ma lu nekk lépp loo xalaat sacrifice boo xalaat jaral na ma ko invitation bi nga gis ni lancement bi laa rek des na yeneen ci biir. di dof dof lu rek xamu ni maa foofu li ma sëriñ bi waxoon moom il ma def le gaamu moom il faut ma am ko par force rek leer tey gannaaw pardon. jigéen bi nga toogal. Hmm. am na lu mu def sa weer bi. Hmm? boo ma weddee nag nga ubbi saagam nga xool sunguf saa ngi si biir. sunguf. dama xool. maa ngi jégalu de xaw naa déglu tuuti. xam nga li mu wax bañu ma ku baax nga. mais comment ça man fu ko lay laale man négatif naa naa sama jus ba lii des di xoolal ñu ngi def échange. dañ def échange naan la foofu ma naan fii. waaw naan la sa bés rek. mais naan la lii. <laughs> ah dëgg doo ko naan. maman lii lan moo ko fi jaar. lan nga wax nii. lan nga def sama verre bi. lan laa si def. ubbi sa saak. sama saak dara nekk si. baal ma xool. sama saak dara nekk si. bàyyi <laughs> bul ma retaan loolu baal ma xool. bàyyil ma xool. waaw baal ma tijji ko. bàyyil ma xool waaw lan la lii lan la xanaa ni ne koo ëpp tu mbokk mënoo koo jëw te koo xamul nu ko yaayam boote wala koo xamul lu nekk ci moom lu dugg ci moom maman sunguf si nga jël def ko sama veer bi pour lan la lan la lan la expliquez-moi man su ma lay bëgg du lii laa lay bëggee su ma lay bëgg ay preuve la yoo may won wan ma ay jukko yu rafet wan ma ay qualité te mbëggeel nekkul loo xamante ne lu ñuy forcer la day ñëw naturellement xool du oom bañ koy bës du xeer yàpp la ak sidit képp kuy bëgg ak ku mën di doon dafa war a nekk lu naturel du taar du alal du sëriñtu comme ni nga def nii du lenn te maman da nga may expliquer lii foo ko jëlee yow laay waxal lii foo ko jëlee maman yow laay waxal expliquer ma wala fan nga jëlee lii ak lan moo tax nga def ko sama verre bi. benn paa moo la ko jox pour pour. dama laa jéem wut ci côté bu nekk aw ma la ma topp sama xol rek. après paa bi la. soo ko naanee dig ma topp. dinaa la topp. te dig ma takk. <laughs> yàqal nga sa bopp paa bi yàqal na la mbëggeel du loo xam ne lu ñuy forcer la. nga ni da nga demoon ci paa ngir mu liggéey ma man naan ko topp la après ma takk la yàqal nga sa bopp au début du commencement sànq maa ngi négocier di xool naka laay def ba jëm la xajal sama xol parce que musulman la am naa droit am ba quatre femmes mais yow bu ma la takkee yow mii sama kër loolu rek nga fay indi ay xonjam ay sëriñtu la plupart gars yi nga xamante ni yoon nañ ñaari soxna instant bi koo ci xool biir baa nga neewi koo ci xool mi ngi am ay problème ay feebar dara dara dara waralu ko lu dul yéen ñi nga xamante ne yéenay jigéen ñi di xëccoo gauche xëccoo droite sëriñtu fii jàmb fii xooj fii sunguf fii su dee mën na rek doo gis ku la takk te sa lii boo demee nga jox ko si sëriñ bi mu naan ko après mu tàkk la dégg waaw Fall. eh bàyyi ma. ay man yàqu naa li fan laa koy waxee. lii lépp madoo moomu si dugal xel xalaat yi yëpp moom moomu ko. je tët tët léegi kii dem na a